dañ fi ñëw di masawu askan wi nga xam ne gis nañ ci li ñu ne euh, daana fi gënoon a bu fekkoon dara amu fi woon parce que quand euh, dëkk bi xam nañ ko aussi parce que lu bari euh, gis nañ loo xam ne def nañ ko fii ci assainissement muy ay canalisation yu fi jaar yoo xam ne yii dafay refouler yii dafay def évacuation gravitaire donc loolu lépp mooy jumtuwaay yi nga xam ne war nañ ko jël pour dimbale nit ñi gannaaw bi leen masawoo pour ndox mi mën a génn naturellement donc a il faut ñu xëcc ko par pompe li ñu gis comme solution du ay fii ni ñu ko gisee du ay pompe yu mag parce que li fi nekk généralement bu ñu amee ay pompe yu ndaw génne ko ci kër gi peut-être yenn pompe yu mag yi dina ko mën a évacuer ba regard yi gën a jege rek mu dal jàll yaakaar naa ne bu ñu ko defee danañ mën a soulager nit ñi fii ak màggal gi ñëw naa nag bu ñu sa màggal gi il faut ñu étudier parce que li ma fi gis mooy daanaka ndox mi même boo xëccee dafay dellusiwaat donc ça veut ndox mi ci suuf sorewul wala bu soree bari na fi am na zone yoo xam ne lu mel ni am na fa am na côté yëmbal am na disposition yu ñu fa def yoo xam ni dañ koy utiliser bu inondation amee muy dimbale pompe yi nekk ci kaw muy pompe yi manque ndox mi ci suuf pour que suuf si mën a mën a également euh, ndox mi mën di bañ a jógee ci kii donc li am solo donc mooy kër yi am na ndox. nañ leen jéem a dimbale ci ay poto pompe yu ndaw ñoom ñu koy jël ko évacuer ci mbedd mi wala ñu relayer ko par des pompes yu mag wala boog ñu évacuer ko directement ci regard yi. yi ndax mën nañu xaar ndimbal ci nguur gi. waaw sinistré yi bokk nañ ci li nga xam ne lii parce que dégg président la république ne jagleel na ci plan Orsec bi ñetti milliards yoo xam ne am na ci benn wàll boo xam ne bi yaakaar na sax ne mën na yokk cash diggante cent mille ba deux cent mille mi ngi dépendre ci euh, nit ki lan la sinistre euh, toll ci këram. kii mi sànq paaru région li ma ci xam daal mooy région de Diourbel am na ci part bam solo su ma su juumul yaakaar naa ne peut-être euh, ci quatorze régions yi war ngeen war leen sori ñett wala quatrième parce que tamit sinistre yi dafa dafa wuute te jii nii wax dëgg yàlla juróom juróomi téeméeri communes yi ak juróom fukk ak ñaar. yëpp am ndox région yëpp moom ndox waaye niveau yi bokkul am na résion yu gën a touché tey jii nii bu ñu waxante dëgg rek wax dëgg yàlla taw bi payoon Sokone la ëppee woon mais bi taw bi wàccee quelques jours ndox mu dem na waaye entre temps ba muy dem yàqaale lu bari donc xam nga ñu ay sincéré waaye bokkut ñi nga xam ne ñii ndox maa ngi seen kër depuis un mois wala lu ko parce que am ñoo xam ne peut-être Kër Massar ndox maa ngi fi lépp fanweeri fan ngi nii donc ñooñu non seulement nekkatuñ seen mais seen i bagage na seen i dund yàqu na donc yooyu yëpp loo xam ne lii peut être dañ ci tenir compte bu ñuy jàppale mais effectivement waa région de Diourbel ñi ci sinistré gouverneur mi ngi koy enregistré buñ paree danañ leen jox également ndimbal bi nga xam ne moom lañ moo ci war